A a a Fimoganané. Mordemai, Azbekai. Modou Lo li ma koy wax rek laa koy waxaat bu xeexee ma duma ko bu bëree ma dan ko merci. Balla Gaye numéro 2 yaay ci kanam wa adina namon nañ la ñu gëj la gis nga joggé nga joggé extérieur ñëw waa Kaolack ñu ngi ni li nga demone def extérieur lañ bëgg xam. wa weddi gis bokul parce que sama képp ku sama supporter gis na lima liggéey aha té lolu moom importance. Mhm. ñi jar nañu sant jar nañu gëreum parce que ay supporters yi doo xam ne dañoo dee ci Balla Gaye numéro 2. bëgg Balla Gaye 2. moo woon ne ñoom lépp lu ñu bëgg rek. maa ngi ci ànd ak ñoom say supporters dañoo bëgg nga dindi blouson bi su meeku ñu xool. loolu la <laughs> supporters yi bëgg wala bëggu leen loolu. na Balla Gaye dindi blouson bi. na dindi blouson bi. gis jeej ñëwal. combat Balla Gaye numéro 2 Modou Lo HBK bu njëkk ba yaako ko defoon ma bàyyi la moom. dama ko ni bu njëkk ba 23 secondes la woon bii ñaata minute wala ñaata seconde la combat bi di def. waaw yàlla rek moo ko xam yàlla moo yor ndam dañuy ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam waaye lenn laa koy wax ak lenn laa lay waxaat te bu taxoon fii moo wax ko. bu ko neexee ñu bëre cent minutes bu ko neexee ñu bëre une minute waaye leer na ma moom bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko point